monsieur Diagne vraiment dañ lay sant di la ñaanal bu baax lii nga defal école vraiment ñun kontaan nañ ci gis nañ ko te lii appui la boo xam ne bii vraiment danañu mën a permettre ñu liggéey liggéey ci mucc liggéey bu mucc ànd ci biir école bi gërëm nañ la sant nañ la au non de tout l'école des collègues du comité de gestion de l'APE vraiment dañu lay gërëm rek di la ñaanal yàlla aussi di la ñaanal yàlla bon fi nga fi nga jëm yaa ko xam yàlla na la fa yàlla yóbbu ak jàmm te nga muurloo ko ñun daal am dañoo vraiment dañoo kontaan. école moom loo ko mën a parce que moom mii xam na li na ci école yi moo tax mu def lii bon lii li tax mu indi ko moom xam na ne école ressource amatu fi. indil nañu laser indil nañu par exemple imprimante indil nañu par exemple ay dictionnaire yooyu yëpp dafay manqué woon ci biir école lii dana mën a tax ñu mën a am appui au niveau des enseignements apprentissage danañu dimbale bu baax a baax a baax parce que parents d'élèves yi wax dëgg yàlla ñu ngi contribuer mais na mu war a mel melu ko mais bu indee lii tey nag wax deug yalla daf ñuy dimbalé daf nañu lo xamné li vraiment soxla won nañ ko ndax école bi ñent at a ngi ñeenti atu yalla amuñu fuñu ñu dëkk bu dul Covid bi sa dinañ leen duggal ci biir né won leen loko yi donc ay xalé tout tank ñoo fi nekk case des tout petits ñom ñoo ñu abal sen loko. xalé dañuy def distance dañuy dox lu yàgg dal dañuy dox jóge fi dem ba Kabasaale ci primaire bi. pour ñu mën a am ay salle foofu parce que salle yi fi nekk rek doyuñu. amuñu sit dañu bëggoon léegi ministre bi daal bàyyi ñu xel léegi ñu utal ñu ci hippodrome bi benn place parce que am nañ ko ba pare. mais maire bi moo war a notifier léegi bu ko notifier rek ñu mën ne ñu mën ñoo tabaxal daal. ñu ngi euh, euh, remercier monsieur Diagne moom mi dëkk R100 xam suñu problème aussi mu ñëw indil ñu lii yëpp. parce que vraiment mosuñu ko am c'est la première fois ñuy am koo xam ne ñëw nañu dimbali nii njukkal di ko remercier bu baax a baax daal léegi ñu koy ñaax aussi pour bu demee ci ministre bi mu wax ko suñu doléance yëpp. lii nii jomb ko kon nag ñu koy si di ko gërëm te li mu def nii rëy na ci ñun lool parce que lii wane na ni moom njàng njor na ko wane na ni aussi. Euh, lépp loo xam ne dafa yitteel lu jëmale kanam réew mi loolu lu ko ñor la ni yonent bi sallallahu alayhi wax ni l'amour de la patrie fait partie de la foi bëgg goo bëgg sa dëkk sa réew dafa bokk ci gëm yàlla te loolu firndeel na ko matériel bi mu indi ku ko gis xam ni matériel bi incha allahu daañ ci def suñu kéem kàttan jox ko ñi nga war a jox mu élève yi ñu jëriñoo ko ni ñu ko war a jëriñoo pour am résultat yu baax a baax résultat yi ci gën je suis venu l'année dernière, donc c'est ma deuxième année. Euh, la dernière fois, donc, euh, Monsieur donc, donc, a téléphoné donc, euh, pour dire qu'il allait passer pour nous donner donc, un lot de matériel. Alors je suis, donc j'étais vraiment j'étais étonné. Donc parce que donc alors depuis que je suis là, donc je n'avais vu que les les partenaires espagnols, des étrangers. Mais si un, natif donc, euh, du quartier vient dire qu'il va donc donner du matériel, alors je dis que vraiment je suis très ravi, très ravi, plus que ravi. Et c'est un exemple, un exemple que beaucoup doivent donc faire et continuer donc de faire. chef de population mais jege population yi mooy ku nekk la nga mën fas doole yam nga dimbali ña nga nekkal bu ko ñëpp defee rek coono yi dina wàññeeku. bii teg aussi man cees laa dëkk fii ma xëy fi laa dëkk ah wax dëgg yàlla en tant que Thiès waa Thiès boo fi juddoo màgg fi Thiès jàngal la ba tey nga ma taxaw fii ma taxaw am nga loolee war a boo ko xamee boo ko xamul loolu moo tax ñu koy ñu koy def. te it dañoo yore parti politique di Synergie républicaine war a asseoir ay base da nga war a amal njëriñ nit ñi. nga pérennisation mënul ñàkk sax parce que dañ ko tàmbali nii rek daaw jëm ren mais jàmmat yi bari na xam nga am na école R100 dañ ko war a tabax collège ba boo ñëwee fii dégg fi affaire ndox affaire bibliothèque boo demeen feneen affaire salle de classe. donc problème yi bari na ci l'école yi te fiñ ko war a waxee daañu ko waxee pour ñu jàppale ñu ndax it luñ bëgg-bëgg feneen. ah fi mooy gënal ndax wër nañu réew mi daanaka ñetti yoon ba samp parti bi mais li ñu décidé maintenant mooy wàccaat à la base ñëw jege population yi pour man man leen amal amal njariñ mosuñ si jóg sax daawuñu ko def sax du ko fësal mais cette fois dañu ko war a fësal pour que ñu nekk aussi exemple ci yeneen ceesuwaay ku ci nekk aussi la nga mën a def nga def ko ngir coono yi wàññeeku. li ñu bëgg ñun mooy ñii fi nekk te yàgg fi ndax ñu nëbbuñu ko.